la République Bassirou Diomaye Faye qui raccompagne le président Macky Sall qui reçoit les derniers honneurs militaires ici au palais. C'est le général Mohamedou Mbeng, médecin de l'État. Voilà. Le chef d'état-major particulier du, du chef de général Maïs euh, Niang qui est le grand chancelier euh, de l'Ordre national du Lion. Euh, Jean-Marie euh, Nian également qui est ici à la présidence de la République euh, que nous avons trouvé ce matin. Le ministre Omar Sambaba, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Et également, voilà, la, la dernière accolade la colère entre le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye. Et cette chaleureuse poignée de main. chaleureuse poignée de main entre le chef de l'État et le chef de l'État sortant, le président Macky Sall. Le président Macky Sall qui s'en va maintenant. Et voilà, nous sommes maintenant avec le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, cinquième et président. Et qui va venir occuper les lieux. qui va venir occuper les lieux. C'est ça, le, le soir, euh, c'est ça aussi la vie, c'est ça le tout déroulement. Un cérémonial, tout un rituel avec ses honneurs militaires euh, qui lui sont rendus dès le début. Nous saluons en tout cas Euh, l'équipe de la présidence de la République euh, qui nous a beaucoup aidé ce matin, Omar Nying qui est là depuis ce matin, qui nous a beaucoup aidé euh, avec sa générosité légendaire également, euh, toute l'équipe présidentielle. Le président Macky Sall Bolouvaé donc est en train de partir et va maintenant, il fait la revue des troupes, dernière revue des troupes. Voilà. Une belle investiture ce matin. Euh, D'abord déjà au centre des expositions de Diamniadio, ensuite ici avec la réception du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui est maintenant le cinquième président de la République du Sénégal. Le président Macky Sall, voilà, est parti euh, et qui a Euh, tous les remerciements et toutes les félicitations du peuple sénégalais euh, pour ces douze années de magistère euh, qui lui ont permis de réaliser beaucoup de choses à la tête du Sénégal sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. Beaucoup de choses ont le président Macky Sall, l'hydraulique, la santé, l'économie, le chantier. Ce sont également d'autres chantiers immenses du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui va mettre en œuvre son programme, lui aussi, continuer, les chantiers, continuer l'émergence économique du Sénégal avec des réformes. Bien entendu, il y aura des réformes. Certainement, il y aura des réformes. Il y a même le président Macky Sall, quand il était là, il était dans ses réformes. Et le président euh, de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, va euh, faire euh, mi tey jii di président Bassirou Diomaye mi ngi toog ne dégg toog xaar ba président njiitu réew mi di président Macky Sall mi nga xam ne tey jii moom la fi wuute ni ki bés ni ki tey daal di yeeweeku toog itam noonu la ñuy gungee gan gan du la wan ginnaaw rek nga wan ko ginnaaw waaye da ngay xaar loolu sax nag tubaab yi wane nañ ci mandarga yu kawe kawe kawe ca nañuy sargal ak nañuy warmaale seen gan xaar ba mu dem xaar ba nga gis ne otoom génn na fii yëpp ngay doog a itam daal di wàññeeku loolu mooy taarix gis nga tey ji président Macky Sall eh, ci biir Land Cruiser bi euh, mi ngi dem nag fi nga xam ne nii xam naa ne xëy na mooy makkaanam euh, euh, loolu mooy li nga xam ne nii moo doon taarixu réewum Sénégal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag mi ngi nii ànd ak cortège Diomaye Faye avec le détachement de la garde présidentielle merci monsieur le président de la République accompagné également de tous ses collaborateurs voici le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye qui se trouve qui se dirige maintenant au salon euh, certainement recevoir euh, certains de ses collaborateurs. Voilà, il est installé le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Bonjour également au grand chancelier, le général Maïseignan, que nous saluons, qui fait un travail remarquable également. On l'a vu décorer euh, beaucoup de noms euh, que, euh, travailleurs à la RTS. Voilà, maintenant, vous allez, vous voyez maintenant le président, le nouveau président de la République du Sénégal, avec le collier du grand maître, collier doré, un or massif avec euh, l'écharpe ou la cravate, également avec la rosette, tous ces attributs maintenant euh, de fonction présidentielle euh, qu'il a. Et maintenant, c'est lui le maître des lieux, c'est le nouveau maître des lieux. La clé lui a été transmise par le président sortant Macky Sall. Maintenant, nous disons en tout cas bienvenue ici au Palais de la République au nouveau président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye Khali. C'est que euh, c'est ça la République, elle Cette image est très belle, ces images sont très belles, même je disais, j'allais dire depuis ce matin. Et, mais elles le sont encore plus ce avec euh, la réception ici du nouveau président de la République pa le président Macky Sall. nous disons honneur et respect